faatu bakkan ci kër Massar Mariama Sagna la ay agresseur xoj ba mu faatu. vers 22h bu suñu mag bi mu ma ne ma eh, Mariama Sagna eh, am na ay nit ñu ko fekk ci këram faat ko ci saas ma sol sama dàll ñëw ci bërëb boobu fekk fa ay gendarme kër gi ñu tëj ko nekk fa di def ay investigation Euh, lu ñu jot a xam maanaam mooy euh, ñu ko ñu def ñaawteef boobu euh, jam ñu ko paaka mais dañ ko xoj pare yóbbu téléviseur bi ak jéem nañu ut leneen ci armoire bi pare ñu wàññee ko soxna ya nekkee ca mouvement Pastef am lu leen metti loolu ndax jàpp nañ ne ku bokk ci ñoom te dogu loolu moom moo fi jógee. ni ma koy dundee comme ni ko sa morom yëpp di dundee may wax ci tuuru jigéen yëpp nekk Pikine man daal nee naa xol bee fees amuñu lu ñuy wax lu dul di ko fi mu jógee yàlla na ko gënal ni mu demee nag moo ñu metti mais jàmm moom ala kuli alin day dem ak circonstance yi mu demee moo ñu me moo ñu ñu moo mais li mu dem méttiwuñu ndax ñun ay croyants lañ dañuy gëm loolu rek. nekon nag madame Maria Masanya, madame Sonko nekk femme bu engagée. anam yi ñu fàttee bi la soxna nag bëri ay jiixi jaaxa waaye pool d'avocat bi nga xam ne mouvement Pastef taxawal na ko ñu bokk ca maître Bamba Cissé ak maître tal jàpp ne benn piste duñu ko muy crime boo xamante ni bariwul lim fi am parce que jigéen la boo xam ne dañ ko fekk ci këram euh, moom ci meeting bo xam ne day doog a jeex rek après ñu faat loolu liñu nane c'est un crime lâche lo xam la ci condition yu metti ko xam da fi baye dom te biñ koy fat doomam ma ngi taxaw xalé bu touti traumatisé donc traumatisé à jamais qu'au-delà des personnes qui ont été arrêtées manam ki nga xamanteni japp nañ ko wala ñi nga xamanteni ñoko def ñom peut-être mën nañ leen atté mais le mobile également dafa am solo moy lan mo leen déterminer pour ñu def lolu ak kan fan lañ jógee Mariama Sagna moo nekkoon euh, chargé de l'organisation du mouvement PASTEF ginnaaw bi mu ñibé ci sen euh, meeting bi ñu doon amal ngir yóbbu fauteuil ci kërëm ci lañ koy mujjé gis ay waxtu ci ginnaaw gi ñu fekk ko mu daldi faatu gendarmerie sax teg na loxo ñi ñu japp ne ñoo def lu ni mel waye enquête ba ba tay mu ngay wëy ak wa parti bi di sàkku justice